totalement bilan wu régime président Macky Sall te dañuy réaffirmer encore davantage suñu ancrage ci Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar dafa nekk une majorité politique ma nekk aussi une majorité de gouvernance ñu nekk ci de 2012 à aujourd'hui di ci liggéey mhm. am ci ay cër ak ay responsabilités yu ñu dénk ñun en tant que AFP ñu di ko doxal boobu ba léegi ba am ko ci ba léegi di ko di ko doxal. Mhm. cër mënuloo weesu sénégalais yi daje ni kii moo ñu doy comme président de la république ñu fal ko. Mhm. mu daje ci mbooloo mu bokk ci majorité Benno Bokk Yaakaar mu ne man kii moo ma doy ci mbooloo mi pour def ko président de l' assemblée nationale. Mhm. mu nekk une deuxième personnalité de l' nekk une deuxième personnalité boo xamante ni du Sénégal des indépendances ak aujourd'hui moom dong ma mujj a toog ci boppu assemblée nationale dix ans yu yu yu tegale. moo tax it jooyoon na fa maa ngi responsabilité ak cër mënta weesu loolu. maam mbir yow da mbalag rek. ah de c'est la vérité da ngay da ngay da ngay da ngay le président Moustapha Niasse. fi mu toll ci réew mi tey senegal même ñii di door a jéem door a dugg ci langue politique am nañu pour delloo ko njukkal. am nañu pour jàng am nañ pour xam ci moom. parce que nag dafa am lu ko Sénégal defal. moom mu am lu mu delloo Sénégal. mu am fu bari fu mu représenté réew mi. <laughs> tey bari na ay kilifa yu ñuy tudd ci réew mi tey. mu mhm. nekk ci biir AFP comme ailleurs. Mhm. ci ay loxoom la ñu jaar mu formaté leen tant sur le plan état. Mhm. tant sur le plan humain tant sur le plan social. d'accord. léegi nag nañu wax ne en 2011 yoroon na xeer. ngi ñëw nañu wax ne en 2011 maa ngi ñëw ci xeer ko wax loolu tam. Diallo non a problème avec euh, Alioune Sarr ñun on ne prône jamais la violence. ah xeer ngeen yoroon non xaaral ma ñëw rek. ñu ñu daaneel damay daaneel Ismaïla. ce que je dis c'est important. li may li may bi la woon. la woon dama bëgg nga wax ma xeer bi en 2011 lan moo taxoon le président Moustapha Niass. xam nga da ngay dóor a kilifa la bu ma respecté. lan moo taxoon mu gàddu woon xeer. xeer Moustapha Niass da ngay <laughs> franchement li xew la tey jii franchement li xew tey jii la xeer ba. xeer ba moom moo ñu jàngaloon ne xeer boobu boo amee lu la naqati ci réew mi. nar a jël sa sa sa démocratie di ko salfaañe gàddul xeer. d'accord danañ yor xeer. Mohamed daane la s'il waaw ah, xam nga bu ma yokk. ah xeer la ñu gàddu a bi ñu mayoon bu yàgg yàgg daaneel rek ñu dem. xam nga dafa am foo xamante ni bu fa bu fa réew tolle. Mm-hmm. ñi nga xamante ni xam nañu état xam ni état di doxe mm-hmm. yow seen responsabilité warul dox ci luy tal réew mi parce que nguur. Mm-hmm. suñu borom moo ko joxe te bu ko jël da koy foqati. fii ñu toog tey di représenter la majorité. yàlla ci kattanam mën na ko dogal après 2024 ñu féete ci boor boobu ngeen féete ci boor bi. non non loolu moom ne. non xaaral rek <laughs> non dafa am non dafa benn image bu bëgg a joxe rek. que bien que AFPS moom non c'est important. da ngay ñëw langaat non ce que je dis. da ngay lang rek <laughs> pour dire. Mm-hmm. non non j'ai compris. c'est une image que je donne comme ça rek vraiment pour expliquer niveau de responsabilité bi politique yi war a jël. d'accord. li may wax un message très important. puisque de l'autre côté dañ ci am ay frères de sang yoo xamante ni ils ont de d'être dans l'opposition ñu bokk ak ñoom ci côté bi ñu nekk ñun aussi dañu bokk ak ñoom te réew mi ñun ñëw ci minorité ñun politique bu fekkente ne responsable politique bu ne am nga jafe-jafe ci ak état walla am nga jafe-jafe ak justice dafa lay jaral nga tënk réew mi tënk doomu jàmbur yi rey leen pour nekk président de la république parce li may wax arrangé wu non attends rek non non Moussa Ba li may wax je ne déplace pas je ne déplace pas c'est-à-dire dama bëgg a woo sànq léegi ñu mais justement parce may dagg daa waxul sax si li mu ko laaj su ma daggee rek ma noppi s'il vous plaît Ismaïla Ismaïla du ma la dagg ci débat AFP dina am candidat 2024. loolu wax Moustapha man am na loo xam ne. non mënul nekk c'est c'est c'est important. Ah, c'est très important mais di nga bàyyi waaw mais dama bëggoon rendre hommage xalifa généraux yi rek. xaral <laughs> waaw waaw ci xalifa ah, généraux. donc donc je vous demande Euh, débat euh, débat xalif généraux yi. Diallo euh, Diallo boobu ba léegi yaa ngi souffrir. débat wuñ ci loolu. yaa ngi souffrir continuel muñ rek. non pas de mais man man danaa la déglu man. mais su may wax bu ma ko bañ ma bañ. maintenant li may li may conclure mooy dañuy ñaan yàlla rek ñun politique yi. surtout nag suñu mbokk yi féete ci kujje gi ñu xam ni réew boo ko soxlaa doo ko yàq. le président Ablaye Wade dafa daan wax naan. je ne marcherai jamais sur des cadavres pour aller au palais dites à votre leader politique que l'État mais mais quand même. bu osé s'il vous plaît non s'il vous plaît non c'est important ko muy wax ne ñun. ñoo nekk ci position mais mais mais mais Ismaïla mais mais attends Ismaïla Diallo duñ ko bàyyi mu wax li mu bëgg a wax. on est à la télé on accepte pas de waxee ci cette position là. non non on est sénégalais on est assez responsable. bu naa ma bàyyi bu naa ma bàyyi bu naa ma bàyyi bu war a traverser des cadavres pour aller pour aller au palais. Ismaïla li ngay Ismaïla li ngay def c'est quand même Ismaïla li ngay def c'est quand même incorrect. va revoir les li ngay def c'est quand incorrect. non non non non c'est incorrect c'est incorrect bàyyi ko wax li mu bëgg a wax. lu mu bëgg a wax. après nga tontu mais Ismaïla Ismaïla Ismaïla bàyyi ko wax ba pare. man aussi j'ai le droit de. non mais mais mais boo koy tontu nga bàyyi ko mu pare. Ah. combien de fois nga attaqué fi Macky Sall on a écouté. non non jamais écouté. sànq ba may wax s'il vous plaît s'il vous plaît ça c'est incorrect. non non non je ne le permets pas. non mais incorrect. mais non c'est pas du tout incorrect. si. mais le fait de nous accuser de c'est lui qui a le plateau c'est lui qui marche sur des cadavres mais Ismaïla c'est lui qui a le plateau également non mais tu laisses pas bàyyi ko mu a le problème non non non mais faut pas dire que tu es incorrect non j'ai pas dit que vous êtes incorrect j'ai dit que ce que vous faites est incorrect Moustapha moi j'aimerais bien rebondir par rapport ak Alioune Sarr. mais sa waay tamit moom du daaneel quoi. non Mohamed ah yow c'est fini non c'est fini rappeler rek. que le président Wade a dit. Mohamed Ablaye Wade wax na du marché ci cadavre wax na fi également. Moustapha en fait man li ma bëgg a rebondir. Mohamed Mohamed. dama la Mohamed wax na man bi fi toogee fii ba léegi. mais Mohamed Mohamed c'est difficile de faire ça. mais Mohamed Mohamed yéen vous vous avez un problème déjà au sein de l'AFP yéen am ngeen problème yow yaa ngi naan léegi que le cas de Alioune Sarr fi mu nekk nga ni le parti a tranché waxaguñu wax guñu mais c'est boo xam ne da ngeen ko bañ a wax kaa la Alioune Sarr tout à l'heure yaa ngi naan bon moom waxul candidature am et tout ça de Saint-Louis à en passant par Thiès fu nekk ñi ngi déclaré candidature Alioune Sarr Alioune Sarr pourtant arrêté wu ko stoppé wul. non demandé wu leen à ce que ñu stoppé ça, ça veut dire comme on dit qui ne consent. donc yéen bu ngeen bëggee toog fii ngeen occulter cas boobu c'est un bi nga xamante ne am na